ñëpp kon di teg nuyoo bi ci ci sumratul huda seen wi neex na lool yàlla na ko ko yàlla def ci mbooloo mi nga xamante ne ko kon ñooy sëti sëñ Abdul Xaadir Primata Lo Mbakke waaw ñoo sëti sëti mag lañ yàlla nee na leen yàlla defal tawfeex ba la newoon ca maam yee nekk ci ñoom kon xamna di nuyu khalifa bi di nuyu kilifa yi yep rek sëñ murtala xamna ne mom joxna ma awsas xamna mom liñ ma bëgg waxtaan lo tedd na lol lu tedd la lo fi gis rek mu ne fi ñu di ko sigréwoo ñu di ko ñu di ko ñu di ko di ñu di ca lii la jóge woon at-tarbiya ruhiyya xam naa nag sëñ Mourtala mi ngi laaj sëñ Mourtala ngi laaj laaj bu am solo mooy yow loolu bu noppee jeexit ja jeexit ja ak taxadiyaat yi nag moo ci gën mu ci gën a am solo moom lan moo ñuy xañ li sëñ bi bawoon xam naa bala ma caa dugg sëñ Mourtala falsafatul ana ana fii mooy at turaas al ana huna falsafatul ana la ma ci jublu mooy ak turaas mooy man africain bi sénégalais bi jullit bi murit bi al ana man sama mbind day fasu lol day fasu motax day day wat tas ginaaw ba kon ak tarbiya ruhiya tarbiya ruhiya de mom mi ngi juddu ginaaw yentibi ali sattu salaatu bi aduna dugge ci julit ñi salaatu lama tarbiya na ak sahaba yu teddiya bam len mu tarbiya ba nopi nak seetaane daal di dugg ci sen bir muy aduna ku ne xam na ne ci taarix salaay salaam bi mu wàccee liggéey rek mi ngi ci néew bi toppatoo tooguñ ko saxaaba yi xëccoo nañ adduna xam na ñoo sax bokki nañ jeex yi te kat salaay salaam mi ngi ci biir néew bi kon adduna kon daal di nag daal ñuy gane si nag noonu noonu jullit ñi ba ñu ba ba ba ñu gane si seen ak am ñenn ñoo xamante ne ñoo jóg ne ne ñoom day ruuk ruug xetti li ruugi ruuxul islaam daa di daw dugg ca ca àll ba ndax adduna gane si na ñu ñu ñu gis ne salaay salaama la Seyduna Omar bin Xattaab waxoon ne man day nekk naa sama sang ba ba mu jóge fii musa boole ñaari rënd ci aw ñam moo tax Seydina Omar momé momé di di di doon wax lola mas nañu xol yéeréem yi am na ñu né lim bu bare ci ay dagit ay sagar mo yéré bay fal mom la sol al muraqaat dik na ci Juma ji bis warakut khutba ajuma ba tambalé ñu né ko ah dit amirul mumine ne nga tay lo wax duñ ko def mu né ah lu ko waral ñu né ko tisé biñ fi doon sédélé fan yi Woro ci am mbub mu mu la jot sina omar dafa amul jëm mu dal dina abdullah ibn omar anaka mu ne ko mu ne ko mangi ni mu ne ko waxal mu ne ni gar xam ngeen ne sama baay dafa am jëm ciir bi ko joxon ci tiise yi matu ko mbubb ma jël sama sama wal boole ko ak walam mu mu mu mat ko mbubb sekk ñu ne ko ah, kon nga waxal tay lo wax ñu def ko oh te abidu mu ngi de amirul muminin amul mbubb mu ma ko jot amirul muminin di sol ay muraqaat ay yére baay faal jublu ca ñàkk daa amut oh Seydina Omar bu tedd moomu bis Azerbaïdjan benn góornóoram andil ko fa beñe beñe bu neex mu daal mu daal mos ne ah neex na de ñu ko waaw mu ne ah mbaa kon dëkk dëkk ba kon bépp kon ci lii la ñuy ah déedéet nag lii kay xanaa nag moom umara yi ñoo koy lekk waa di yëkkati loxoom daal di ne delloo leen ko su ngeen mënul dëkk bépp di di di lekk lii bu leen ko fi andeeti oh gaa yi gaa yi kon ñooñu kon li ñuy waxtaane kon ak a tedd waaye ak a jafe ak a metti ak a metti ak a kookee di Sidna Omar mi doon wax loola moo toog ca min barabay xutba Jek jékki naan ya sayal al jabal bañ génne si dal yu kala kanam la tial ne ko waw ah yow de Omar yow bi ngay xutba da ngaa jékki-jékki naa yaa sayal al jabal lol mom lu ko waral lu mi ko man de dañ ma wuññil déele yi may seen sariya ca ay non ko gaw mën naa koy aljabal aljabal saari ya dégg moom kaddu ga doxop ñetti wer la moom moo tax yàlla may na ma fawqa sam'i saariya saariya mbër la de Omar moo di dund dund gu googu moo mën a gis loolee saariya moo mën a dégg loola loolu nag kon ah loolu kon li ñuy waxtaane kon lu am njëriñ la waaye lu jafe la abu xusayfa al al yamaani nga xam ne moom lim daa laaj ñu incha allah mooy lu bon lu bon e e Omar ne ko wayo lu lu tax yow rek nga daa laaj saa ma lu bon mu ne ko xana ngir bëgg ca ci mu gay laaj lu bax lu bon laaj lu bon lu lu bon saa may nangam lu lu bon nga xamne ak ak nifaq moko xamone mom parce que Sina Omar na ko wax ne ko fa ndax gis nga ci man ak ak nafiq mu ne ko gisuma ci de su ko ci wax la ko gaa yi ko ut gaa yi nga xam ne Omar moomu di laaj ba xam ndax moom naa fi xilaam ndéet day salaay salaam nee woon na mbedd mum solo seytaane solo ca meneen kooku mooy Seydina Omar Seydina Omar Nobil Aziz nag sëtam ba ab am na doom na sët bu tedd sët ba nan la ko amee sun soxna yii mën caa jëriñu sët ba nu ko amee Seydina Omar guddi muy rondu ba romb ak kër soxna soo xam ne dafa toll ci ci matu ndekete sax aw ñam sax ndekete nekku ba Seydina Omar ñëw mooy toggal ki matu ab laax daal di yónnee ki ki mu àndal demal nga ci kër ga nga wol ma sa sa sama soxna mu mu ñëw toppatoo ko te muy abir muñ de gaa yi ñoom ci ci xamuñu ko de waaye xisa bi am njëriñ fii mooy Seydina Omar day day dox guddi di di romb romb ak kër booba miir amut waaw ay xayma rek am mu dégg as soxna naan sët ba njaraw soo meew mi ñu war a jaay suba mu ne ko mu ne ko Omar de da tere mu ne ko waaye Omar néew bi mu ne ko bu fi Omar nekkul kat yàlla mi ngi bi Sidina Umar dal na ki ki mu àndal xamatul ma kër gi moo ko xamatul ko ko ba ba ba mu àggee mu daal ne doom yi man de gis naa jigéen joo xam ne bu sama xel nekkoon ci jigéen danaa ko jël kenn ci doom yi ne ne ko man de mën naa ko ko jël kooka mooy woy juru Omar ibn Abdul Aziz ah gaa yi mbir moo gis nag dara la dara la sun soxna yi nag ñoom di ndikkatuñ kooka moo tax Cheikh Mouhamadal Faatal mu tedd ma daan wax naan wali yi day seen yaa ngi ci ci kaw asamaaw rek di jëmbeelu waaye nag dañoo mënta am ndey waxut bàyyi de bàyyi moom yomb na Seydunaa Noohin alayhi salaam la alak doomam ndey jaa waaye du bay ba bay bi moom mi ngi bokk ci asumi waaye ndey ja kon moom ndey moo it waaye bàyyi moom du dara moom bàyyi moom moom moom yomb na kon atar bi ruuxiya ngook Omar ibn Abdul Aziz moom mu tedd moom moom ba mu jëlee ngóor ga moom it xool ko bokkam yëpp da leen a woo nangu seen alal ya yaa alal yi kat alal yi baytul la lu am solo alal yi ji alal yi jullit ñi la moomu leen ko nangu lépp moom muy sol mbenn mbubb su ko bëggee fóot sax kat day dugg ci nee bi joxe mbubb mi ñu fóot ko ba mu wow mu sol ko amul ñaari mbubb ah, eh, ana uwaysul xarni ñaari mbalaan la yor taraxlaayu bi ak ak ak li làmboo su guddee balaa tëdd dana wër kilomètre fu ne mu doon ci ci ci gox yi ana jaa yàlla yu amul mbalaan man de am naa ñaari mbalaan su wëree ba sonn gisul ku ko soxla mu ne yàlla man de def naa li ma man oh ah gars yi kooku oosul xarni yi sala sala ma nee na inni la ajidu nafasa min minahi tireman te kat mom kat musta sallallahu alaihi wasallam ci ay beuti dana te ya wasallam daana wax ne yalla mi may xegn fi ndegata bo ma ma ma ci jublu owaysul kharni o oh ah gay koku koku dunam dundam ko metti na koku dundam ko metti na de gay waaw gor gor a selal digi digi digi ba alaihi salama bu ko yalla ya de xegn mburi wax xegna ci yow kon moom li ñuy bëgg a waxtaane ne ne ne kon lu am solo la xam naa ne bu bu bu déglu woon de dana baax lool xam nga boo dee wax du la yitteel ki di dimbale rek mooy mooy ki lay déglu waaw loolu am solo lool te man nag li may wax damaa yitteel dama dama ko fonk de man damaa fonk sa sa wax dëgg yàlla wurus la ci man ngalam la kii waxu xamut moom man mën na koo bañ a man dama ko fonk lol kon kon sang so lay wax sang so nga xam kon sahaba yi kon agun duguna gaay gaa yi di bi kon kon loola ter tër tërbiya ruhiya moy ñoñu kon teskiya lay firi te teskiya fexe ba doo matière al almadda teskiya saru ba nga Seydina Omar radiyallaahu daa waxoon ne Salmaanul Farisi day su su ragalutoon yàlla du ko moy ñu ne ko lu tax mu ne da ko sopp loolu mooy suufenke yi ñoom ragalu yàlla dañ ko sopp waaw kon kon sopp gi gi kon tax na ba Salmaanul Farisi moomu mas naa wax ne man day gëwuma barab bu sel ardul muxaddasa gëwuma ko de dafa tëdd la booba Madina nit ñi dañ daa jël newi di di fa man gëwuma gëwuma man lol de lima ma gëm yow nga doon muxaddas yow oh ko kooku yitee jë kawe na nga xamne da ngay dem ba yow fuñ la denc foofa doon muxaddasa loolu kon yite la ko kon batay kon moy moy arrahilul awal ñi ko kon xana kon tasketu nafs la ba sa di mana jakalo ak ak ak jana sahabi ba sallallahu alaihi wasallam laa na nga xëyee mu ne ko man de xëy naa ne di mu'min mu ne ko ah luy mandarga ma mu ne ko day daa mel ne bu ma xoolee sama ndeyjoor seen àjjana bu dee sama càmmoñ ma seen sa wara la ma ne ko arafta xel sëm xam nga kon mooy ca yaakaar naa maanaam nun moom fi doole moom sun sun bët yi ni mu lëndëme xool yow gën a lëm nu gisu dara luy xewit kenn du ci xam dara jéyee yu ñëw ci suñ kaw kenn xamut na jéyee dana ñëw ba cay man sax dara for kon kon nag kon nag day mel ne kon tarbiya ruuxi kon moom léegi jotaat na tarbiya ruuxi ca sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa bi mu ñëwee xaaloo leer kan moo lay wan jamonoom ja sëriñ si booba ànd nañu ak wóor yi tong ci kaw baadoole yi jin tollu ñu wat na mom serigne si fi toll nii ñoo wóor yi ño ño tong ci ci kaw baadoole yi loolu kon mom dikkaat na xalo li leer kan lee boobi salaatini lolu mo dikkaat na tay kilifa buñ na won go president Macky Sall wo ne ko dama la bëgg def conseil nangam da ngay sant lo da nga daw okel oh mo ne kat suru sang ba day mom neewon nañ ko lolu waye mom day da bañon waaw bañam nga lum ñu jëriñ waxuma moom lu mu ko jëriñ de bañam nga lum ñu jëriñ sëñ Tuubaa bu nangoon xaalu liir kan su doon nangoon na ko dem ca la joor kon Tuubaa du am Tuubaa gi gi kon kon du am kon kon moom résultat bañu sëñ Bamba ga feeñ na lool moom leer na nañ ñi mooy moo tax Tuubaa am waaye nag ñun ñu bari ci noonu dañoo gëm nihayatu taarix jàpp nañ ne kat moom kenn mënatut a doon dara moo tax yow bu le président Macky Sall woowoon da ngay sant yow daal di doon ab conseil waaw di di ko tiitaroo bu toogee ci ab jotaay ñu ne ko ñu ne kat sëñ diw sàngam conseil président Macky Sall fekk ne xas nañ la bu dee jàng nga xaalu leer kan xas nañ la sëñ bi xas nañ la yaa ngay dem ci koo xam ne nit ko adduna la faaw mu laaj la loo xam ne lañ ko cay wax du wir faaw mu laaj la loo xam ne na nga ko koy daganale wirut bon ba noppi faw nga sëgg daganal ko moom it mu lay xool de xam ne li li ngay wax dara wiru ci waaw ay waay sama benn waaye day wax lu am solo am njaayeen la président Abdoulaye Wade daa kilifa da da ko woo mu ñëw mu jël xaalis yu bari teg ko ci taabal ji ay takk yu bari suñ benn sulu dara sol bolok mu ne ko mu ne jël ci loo mën a yóbbu señ ba jël poche yi poche yu bëriwul nee ma ko accam ab señ bu solo dara ab señ mu ne ko yow da ngaa war a dara ab señ day solo dara ay way ay way xol ko señ bi loolu gàcce la nga dem ñu jóorale xaliss bi nga mel lam jaayen bu xif te sax for amo bol ndab loko def loolu kon xalu leer kan la li abwab salatini taxaw si jawaisa tuxnii kullama hini xiini faqultu rabbi waktafaytu bihi wala suradiya gayra al ilmi wa diini nag léegi dem na léegi noonu kenn kenn kenn yitewoo wutut loolu ku yor daara sax kenn du la nawloo waaw yaakaar naa am mbakke mbakke bu samp daara moom yaakaar naa mooy gën a fegge ca kër mu dëkk kenn du ko nawloo ndax ndax daara moom yëf yi baa doola la ci jamono jii waaw kon nag tërbiiru ci ci roxe kon jot na kon ndax la xewoon démb dikkaat na damay wax ne masaalikul jinaan mooy mu tëb suntuwaat da ciy théoriser ab société société bu bon bi bi fi fekkoon lay wax na mel nga xamante ne masaalikul jinaan war nañu jikko yu bon yi nga xam ne moom moo fi nekkoon rëy ak bëgg addunaak bëgg ak palak lu ne citoyen ma ngi koy wax ca masaalik naan nag wala sa tax tawil wusula lil jëliil bi xayre xatin aqabaati jann biil waaye nag jafe-jafe mooy al wusul bu ñu xamuñu ko de te xanaa wusul kay àgg ca pale ba waaye àgg fan àgg ci yàlla xamuñu ko noonu àgg pale ba lañ xam waaw président bi jox la lu xaalis bu bëree bëri nangam nangam waaye ñun xamuñu al wusul ki fii moom mooy àgg ci yàlla ku ko bëgg a def danga dagg tënk-tënk yi nga xam ne moo dox sa diggante ak loola loola mooy demal ca ca masarik faslun fil bawatin caay-caayu biir yu bari yooyee yooyee nga xam ne da koo lim mu bari lool yooyee nee na ku bëgg a àgg ci yàlla faaw nga dagg ko sëñ Tuubaa kon Mbakke Kajoor woote na wootee mburéy ba bu sell ba woote kat ne kat salaay salaam moo wax ne ma rabbi asxaabaka bil himma muy tënk ba yitte yitte sama bàyyi nee na ma sëñ bi mas naa woote njaareem xaaja guddi sëñ Malick Ndiaye sëñ Mbay Sarr mbooloo mi ñëw sëñ bi daal di génn asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum daal ne sëñ ma Masamba Masamba ñëpp ñëw nañoo sëñ Masamba ne ko jópp ñëw nañ jópp jópp mooy ñi ñu xëpp mu ne ko waaw jópp rek mën a ñëw oh waaw loolu loolu loolu dara la jópp doo nga mën a dem waaw jópp rek ma dem te jópp doo ngay àgg mbooloo mi li ëpp duñ àgg duñ dem duñ àgg wolof nee na ñëpp a bëgg a dem kaw waaye suuf du ñàkki gaay waaw suuf moom yaakaar naa moom bari na na ay ay gaay lool sëñ ba sëñ ba bam noppee daal ne yitte yitte yitte bi bismillah ñetti baat la wax baa ma ko ñetti yoon daal di wëriñ ma ne waaw ku dem sa kër yaay xam baat bi lan lay firi fa yow yitte yitte yitte yitte oh woote xaaja guddi njaareem ñëpp ñëw jopp ñëw mu ne ittee ittee ittee oh loolu moom yaakaar naa lu lu matoon a jàngat la lu tax sëñ Tuubaa di woote xaju guddi di wax benn ba kon atarbiyatu ko kon bi bi himma himma Cheikh Abdou Khadre Jilaani nee woon na himma nag mooy sam xel du toq ci adduna du toq ci àlaxira yàlla dong moom ngay man ma waxoon ne alhimmatu mooy chadbul wujud al wahbi bi mim xaatil wujudil xaqaani wa huwa amrun yaxlamu ahlu mooy kat yàlla yàlla gann la leeram gi gann la ba faral la xoy xoy adduna yi waaw loola loola mooy himma nga yittewoo wax naa ko barab sàngam bis may ma def def waxtaan may leen ay waay fii de bu fi am neexal ñëwoon ne ne ne kan moo mën a ne diwaanul aarifina bi lay dëgg la du ay léeb ma ne neexal bi dana dellu de oh waaw ma kon nun tuba gi bu fi neexal boobu ñëwoon di wër kilifa gu ne ñu wër ko teg sawara ne ko waatal ci sawara wiit dugal ci sa loxo ne ne kat diwaanul aarifina bi la maanaam léegi am na la du ay nax yaakaar naa kenn bu ci dugal sa loxo oh sëñ bi loolu xaw di xaw di gaa yi nga xam ne kon moom kon moom euh, almahrifatu billah kii gi moom ku ko doon wër da koy wër ca borom col yi nga xam ne seen col ga dafa tilim dafa nangam ñooñu nga koy wër waaye doo doo ko wër ci borom dara yi loolu loolu lu xoromu la sëñ Tuubaa daal di woote bilhimma nga xam ne sëñ Adama Guèye ñoom sëñ Daaw Abdourahmane ñoom sëñ Daaru Assane Ndiaye ñoom gaa yeeg kàngam yi ñëw sëñ Bakri Bousso ñoom ñëw sëñ bi di leen yar yar ci lu metti sëñ bi la Jóob na ko ca Irwa na nam leen doon yare jàng alxuraan sikar tur yàlla xiif xiif bu digg doomu deru jigéen ñi loola bokk na ca élément yi nga xam ne citoyen moom la tërbiya boo xoolee daara yi am léegi nag ñoom sikar tur yàlla amatu ba genn daara yoo xam ne sëñ ba dara jox dara amut man xamu ko waaw ah xam naa ne at yaa ngi bëgg a bari te te te naa mag ñi yaakaar naa dégguma fu mu am ci murid gaa ci murid gi fu ñu joxe tur yàlla déedéet maanaam ma istixdaam kasir am na moom liggéey loola liggéey loola ba ba nga màggat waaye nag am maa di la jox tur yàlla moom digguma ko fenn la ca des mooy nga beru jigéen ñi dégguma jenn daara ju ñuy ber jigéen ña sëñ Fallou day diggu naa daaraam ja ñu wax ne daara ji bu bu boo dong yi masaan nekk ci tool yi day am gone gu góor bu tuuti mooy taxaw ci digg yi digg wi bu séenee jigéen jigéen na ngi ñëw sëgg leen ñëpp sëgg ba jigéen ja romb ba jàll mu ne mu jàll na ay waay loola loola moom amoon na nga xamante ne tey sun bii tey sun bii bii tey li muy tedd tedd nag buñ fi yaakaar nag ne malaaka dana dugg fii ci bax bi ah, moom du fi dugg moom xanaa moom xana kay nañ waxtane bax rek waye malaka mom du fi dugg moom malaakam yërmande xanaa malaakam mbugal waye du fi dugg de ah si balam jóob de ko won ba ye wote jangi jàngi ràbb mu ne mbaa góor bi fa dajé ñu ko ah kay mu ne kon su leen du wuyu te si si si si na jëm ci jàkka ja si si tafsir ak doomi bajenam ju ko fàtte woon ab jaaroom ca poos ba ñu ñu koy jokkalante si si si si si si ba tëll jëm ca jàkka ja seen seen loxo yi la laalante daa dëpp moom keroog julli ju day jooy di jooy ne ne njaaloo dama ko daa dégg waaye tey laa ko mas a gis oh xoolal moom njaaloo ci moom ñaar ñooñu maanaam seen loxo yi laalante rek te ko tudde njaaloo keroog julli jiwut kon kon kooku nag mooy tër bi yëpp sëñ Bamba ba waaw daa de kon sëñ Lamine Diop moom foofu la ne mas naa dugg ci jàkkay njaareem ji génn nañu ñu sàcc ay dàllam gaa yi di ko wër mu ne man de li ma ci rek mooy ci ko jël xam naa moom dana sonn ci laqatu waaw moom du ko ci laqatu bi muy laqatu moom waaye dàll yi moom dikku ko dara kon sëñ Tuubaa nga xam ne tër bi tërbiya gu métti la woon waaye nag sëñ Tuubaa dalay jox dara xam naa lu lu wér a wér sëñ Tuubaa tërbiya gam joxoon sa sa sëñ Isaa xam naa ci lu wiir ne joxoon na ko dara sëñ Daaru Asan Njaay xam naa ci lu wér ne sëñ Tuubaa joxoon na ko ak tërbiya sëñ Manaar sama maam xam naa ci lu wér ne sëñ Tuubaa joxoon na ko ak tërbiya gaa yi gaa yi ana ana ana yi nga xam ne noonu kat yooyu am na moom kër kër yooyu yëpp moom wér na ma cëng moom ne dara dara man fa woon wér na ma cëng moom waaw xaw ma nag ana waaye wér na ma cëng de nga xam ne sëñ kon moom joxe woon na kon ay dab ne dëkk leen gaa yi nag dafa mel ne dab ya ginnaawam dañ koo dañ ci xaw ma dañ koo def lan kon tërbiye ci murit gi wasaa'il yi mooy lan moo doon nga dem nekk ci ron aarif billah aarif billah yi nag moom du lu donn déedéet aarif billah yi moom du lu ñuy donn de aarif billah moom lu sun borom di maye la lu ñuy wut la ku ko wut man koo am bu soobee borom bi aarif billahi boobee xam yàlla nga xamante ne dana am kashfu xam sa biir xam sa bit xamin woo xamante ne sax dana rus yow nga xam ko am na ci ñoom lu ñu xam ci yow wax la ko jëmmir lu ko jiw day li nga fanaan ne big baaxut de nangam jiw bàyyil njaaloo jiw del julli nangam nangam am na koo xam ne bu la bu xamee ci yow loola it day naxaate ba nga génn ja tey ma naan sama maam ab dongaam boo xam ne ci kër bu numbee da doon jëfandikoo ndox mi sàngara añ jot mu ne nañ ma ko wool ñu dem woyu ko muy leen a ah, mu lay ndaw la dem sema ne leen ko bu dikkul du maañ ndaw di dikk ne ko ah sëñ bi nee bu dikkul du añ mu ne xam ngeen kat ni ma mel ñu ko ah sëñ bi loolu wax mu ñëw sema bokk ak moom leen nab li ba mu ca jógee ca la bay sàngara oddu ila sabili rabbika bil hikmati hikma ngok maanaam keroog waa ji ndax bu ëllëgee si may kat dana ma wo xetu sangal gi di ko mu muñ ko ay way ay way ay way te amu ca mom pexé waaja ca la bàyyee sangara kon kon ñom ñëw ak nga xamante dañ lay walu jikko xaarif billahi ngay am bu xam dara xam sa rek gi bakkan man la ca loolu loolu mooy yoon yi moom moom mooy yoonu tërbiya léegi gi nag yan bagage lañuy lañ koy defe ñaari yoon am na ci murit gi li tuddee laxasaayu nga xam ne dem ca daaray sëñ ba taqoog moom tër bi taqoo taqoog moom mu lay nampatal ci ay melokaanam yi nga xam ne mi ngi ko jëlee ci ca chamail al al al mustafawiya sarifa salaay salaam jikko tëdd ya moom la lay nampatal di nag ay bagages bagages yi li muy jëriñ mooy yombal dox bi nga xamante ne vitesse bi ngay dox mu gën a na na gaaw léegi nag loola ci wasaa élii la bokk nga xamante ne jox la nag tur yàlla jotaay bi ngay toog moom nonu diko diko diglu diko xol dalay dimbulé misal rek seetlul ko mel ne si abdourahmanum darul moti bo fa togué goné yi taqoog moom mom da ngay gis ne jeexital na ci ñoom jeexital dal ci ñoom donte sax man na am sax waxut waaye ña ngay jéem roy jëmm jël lolu lu am solo la lolu ñu tuddee atarbiyatu bi bil hal ak tarbiyatu nag bil maqal nga xamantene ñi nga xamé ay takkoowu lañ ñom la gën a yitteel yi ñi nga xamé dañu dañoo ñëw jubbalu ba nopi delu ci seeni yitte waye nak léeg-léeg ñu siyaare ci sëñ bi di wax ak ñom ay baat yu koy mokkal di ko yobbu di ko dund rooxu sëñ ba nek ci baade ya. yi na ci ay kot legi nak tur yalla koku aajowoo tur yàlla ndax ndax bu demee këram nekk ca tur wa moo fay wuutu sëñ ba mooy doon médecin nga xamante ne tur yàlla wi mooy fatu naaru gorom bi ci nga xam ne moom lay war du ko wàcc ba àgg ca pay ba loolu àgg ca pay ba ñu bari dañ yaakaar ne sax moom ay nax la àgg ca pay ba te pays ba de lu am la de pays ba mooy conseil privé su bi buur yàlla yi fa ñuy daje nga xamante ne lu bëgg a xew ñoom danañ fa daje xam nañ li bëgg a xew ci lawul ma puus daa daa di ñaan yàlla nekkoon ko nag dañoo bëggoon nga sarax ñu nangam bañaam su borom mën a caateg ay ay condition loola ñoom ñu jëm koo matale suñu borom fànq loola loolu mooy ah, mooy jiwaanul eh, eh, aarifi fi fi de billah am na de diwaan ab kuréel la waaye nag bëriwuñ bëriwuñ de moom neexutu dugg de ndax téeméer képp lañ ak fukk ak ñeent adduna bépp buñ leen dajalee taaraar leen téeméer fukk ak ñeent képp moo fay nekk foofa loolu kon moom lu naqari dugg la bu taw feex bu ci amut yaakaar naa du neex a dugg mag ñi ñi nga xam ne sëñ Tuubaa defaroon na leen ba njëkk sëñ am sëtu jaxate sëñ am sëtu jaxate ku sëñ Tuubaa defaroon la ba mu njëkk mas naa fatu këram fatu këram guddi ñu tëj bunt yi sëñ Tuubaa woolu ko ci jumaa ji mu wuy yi ko ba mu ñëwee daa fur këram loolu la ñuy tuddee ci tasaw ak tatawur tatawur évolution maanaam nga xam ne léegi ruu gi moo tatawur ba génn néew bi ci lu dul jëmm buy dikkaat doot jëmm docteur Jaxate sëñ Cheikh ngay ma ñu ñëw na fi moom ne ko bi Cheikh Moustapha nekk ci wéradi gi damaa bëggoon dey bu dee mën nañ koo wuutu ma wuutu ko ma dem moom mu toog féem-féeru daal di laaj sa satala gi daal di jàpp fi muy jàppee fi lay wax ak ku ki daal ne ah, wax naa ku baax ki de nee na ru nee na kat dee benn buntu la kullu nafsin saa ekatul mawtu kenn ku ne yaa fay sa bopp xool de si seen fi fi mu toog di jàpp fi lay wax ak Sëñ Bamba ko ko kon am na am na daana wax naan si si seen am naa ci si seen Bàmba lu ay doom amut saa su ma ko bëggee gis gis ko sëñ Matar Bintaloo moom fi mu soonu lay wax ne wax naa ku ku baax kii nee na ma nangam ah sëñ bi loolu sëñ bi neex na de gaa yooyu sëñ bi gaa yooyu loolu neex na toog yi biñ biñ fi bëggee jële sëñ bi maanaam nga xam ne ñu dikk ci Cheikh Moussa ne ko dañoo ku góor góorgóorlu góorgóorlu boo xam ne bu ne ko ci buy deyaaleeg boroomam sax salaay salaam du ko fekkee loolu mooy lan boo ci xamee dara tontu ma ci lu gaaw Cheikh ba ne ko loolu day génn na xaqiqa man man keroog laa xam ne kon na kon leen kon lu dul kon xaqiqa ci fii on fil mutasawwifin mu ne ko waaye nag loola kenn du am lu may bi barakati salaatu alayhi wa sallam oh de ba buy boromam ba du ko kon kon li neex Cheikh dem di ndaw Massamba ne ko ci dara kon kon amul kon amul kon kon set set tax ñu man nga set nañ set giñ set moo tax li nga xamut koo jàpp ne tane la tane la ca nga dikk ko sa ndab loolu lu am solo kon kon kon ñooñu ñoom kon Sëñ Tuubaa kon defaroon na leen waaye nag tarbiya ci yoon wi murid wala ci murid yi bokk am nañu ko kon ay ay yoon yu bari ne naa am na tarbiyatul bil xaal bil maqal bil adkar jamono ji nu tollo gën terbiye mo fi mana wara gëna mëna jappandi bil hal yomb da ko waji yomul yombul bil makal waji de tay dem di di yóbboo ko ñewat man na am su su su génnee la han sala waxon taala nafaqa han sala te sala la ne ko bu ngeen doon sax ci bu ngeen toogee ak man xaal bi ngeen di nekk kon de malaaka yi danañ saabu xante yéen ci seen kawlal yi waaye nag xan sala saa saa ndànk-ndànk rek kon moom tërbiyatu bil maqaal dana baax bil xaal mën naa am waaye nag tërbiya gi nga xam ne jamono jii moo gën a yanu maanaa ci fi man mooy ak tërbiyatu bil asgar ma nga ca tërbiyatu bil asgar sëriñ bi bëgg doon murabbi na dem tërbiyewu ji ci ay tur yàlla ba xam dara am kashfu maanaa léegi di xor-xoral di di jokkal nde ak di di moom di ko di ko ay yëf di ko xamal ci xoli nit ñi loo xamante ne du neex a xam te jaaroo foofee kooka jaar su boobaa nag ñëy di dikk fa yow nga leen di jox bagage yooyee la ko jiitu mooy na nga am isnu isnu na am isnu ci borom bi yàlla de yàlla jox la yàlla nga mën a tërbiyaa na la jox isnu nga mën a woo jaam yi leen kaay leen ma xetli loola moom da am isnu ci ci borom bi waxuma ngay am ko ci isnu keneen de sëñ Tuubaa ngeen waxuma loolu de isna ngay am ci borom bi yàlla boo amee is nag ci ci ci yàlla nag loola mooy kon am am nga kon xanaa is ni koy am ci yàlla ko am connexion lay doon léegi nag tur yi di rek suñu borom di xamal lim lay bàddil ca ngay joxe yow am na ku laaj tey jii ne ab yéefar moo ko ko laaj ab yéefar ne ko ndax tërbiya ruuxiya lu scientifique la ndax tërbiya ruuxiya ndax ndax lu scientifique la ma ne ko waaw lu scientifique la kay waaleykum salaam lu seen lu scientifique la soo ko defee gis dara am dara condition yi mag ñi wax ku ca jaar xam dara am dara la mooy nga wéetal yàlla wéetal ko yàlla kenn la nga wéetal ko ci ci sa xol nga xamante ne sa xol bi kudur yàlla du ci ne du ci fanaan su boobaa yàlla dafa dafa am fulla sëñ tubaan daa wax ne allahu min kulli karimin akram yàlla moo gën a tedd ku tedd ñu ne ko ah mu ne waaw fu waay di dem rek tedd ngaa ku ko yóbbu te yàlla mii moom man am ma ku jëm këram in xaadalahu takaram yàlla day yónni ni tëdd nga ne ko demal gàttandul ma sama waa ji ku dul moom nag da ngay ñëw ci kër gi bay dem yóbbaale tëdd nga kii nag moom tëdd nga lay yónni ñëpp naan waaw tëdd nga fu mu jëm ba tëdd nga jàpp ci sa loxo gaa yi xam ne kii kan la tëdd nga doon teeru kon in in in xaadalahu takaram bi nag boo xamee loolu ne yàlla mugante di ñëpp aslim li woo kulla ka an imaani jëbbal ko sa lépp wa man yuslim wajhahu ilallaahi wa huwa muhsin kon condition bi mooy dangay ngay rafetal rafetal mooy da ngay sellal ixlaas sellal mooy lan mooy nga ne wéetal yàlla ci sa jëf ji ak sa pas-pas yi ak sa wax yi lépp rek yàlla tax nga di ko def. si aslim loo xulaka ka an imaani daal ne nag waajibu bi shukri bi kufraani soo soo jëbalee yàlla sa lépp ba xéewali tàmbalee ñëw delloo ko ko ko lu lu muy def kon moom yàlla mu ne tukk fa isaabu maa njiraan yàlla kon dara la fegal isaab fegal la sawara seet seetal kon de allahumma bihi min kulli karimin akram li mu ñuy joxoñ mooy ne kat yàlla moo mat a wuti kon wéetal yàlla iyyaka na'budu yow kot yow rek yow dong la ñuy jaamu wa iyyaka nasta'inu yow kot yow rek yow dong la ñuy dimbandikoo soo doxee noonu ci ci doxu biir bi suñu borom dana la wéetal ci ay may yoo xam ne mayu ko keneen ku koo xam ne melut ni yow kon lu am solo kon la wéetal yàlla ci dox bi ixlaas sellal gi nga xam ne mooy woo woo muhsin sellal gi sama baay damaa dénkoon ne ma li gën a bon ci doxu biir mooy waruj waruj feeñal lu nekkul ci ceew woote woo lu wérul ne li ngay woote woo nekkul ci yow loolu mooy waruj maanaam léegi naxee mbaay dafa tam ne mooy rek yàlla nga tàllal ko sa loxo ñëpp naan yàlla ah waa ji ne leen loxo yàlla yàlla ne ah man nga tàll loxo nga ne ko déet naxee bay man ka nit ñi lay waxal loolu mooy waruj moom nga xam ne yow maanaam maanaam yow yàgg yàlla siqule dara looy def rek nit ñi tax kon si tur yàlla yooyu ci ci nga xam ne kooka am na ci ndigal mu mu jox la ko léegi nag li li nga xam ne moo war a jiitu ci tarbiye bi mooy almaquusu min allaahi bi waasirati rasulihi sallallahu alayhi wasallam bépp sëriñ buy tarbiyaa li mu war a jëkk a def mooy nag jox maaxuus maaxuus maaxuus nag soxna yi ci seen ba ko de sëñ Tuubaa nee na digal naa ko képp ku aju ci moo xam jigéen la moo góor fekk ñi ngi ci ci kaw suuf soxna yi jigéen ñi soxna yi xam naa ku ci ci amagul maaxuus ma baaxee ko rek fukki lexlaas ak ñaar yi si si Tuubaa waxoon njëriñ ne ku am maaxuus na ko na ca boole ku ko amutoon mën na ci caayam fukki lixlaas ak ñaar ginnaaw julli gu ne xul walaahu ahad allahu la muy lit wala muy wér wala muy ko lahu ba noppi wérdu ko fukki yoon ak ñaar yéene ko ne maa la xam naa nag man ëppaguma ci si si la man dama ko man ci téere yi da doog ko gisee xam naa ne ne mën ngaa gëstu jombul nga nga gis ku ci am sil si la waaye man ëppaguma ko ci ci téere yi rek laa ko gisee waaye kon la gën mooy bu dee fir nga ij yi yow soxna yi bay boo nga dem wuti maaxuus maaxuus nag bi ci gën gàtt dem cee yomb mooy wirdul xaatim al wirdul xaatim moom yomb na lool ñetti képp mën nga ko ci cee def waxtoom subaar la ak timis lu am njëriñ la maaxuus soxna yi bu leen ko dee def ba mu nekk ci seen ruugi ba dugg ci dëgg bu sa doom tàngate tàngat tàngat xam ngeen ko am lu leen jaaxal ci moom wérdal maaxuus wi jàppal wérd ko ba mu àgg nga ëpp ko ko ci saasa mu di deñ bu dee seytaane rek la ëpp ko rek ci saasa mu di deñ moom def naa ci expérience boobu am na ku ma wax ne ma soxnaam daa am gone waaye gone ga nangu wuta nàmp ma ne ma ne ko ma ne ko wirdal maaxuus ëpp ko ci weenu soxna si ëpp ko ci gi ñu ñu ñu xale bi bu ci kanamee woo ma ci kanam woo ma ne ma damaa génn waaye nee nañu ma ma ngay namp maaxuus de maaxuus dem rek ëpp ko ko ndax kat maaxuus tur yàlla la tur yàlla la woo xam ne sumbam ci moom moo ko tànnal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu tànnal ko bam ba kon moom dëgg dëgg dëgg dëgg moom dëgg dëgg tur yàlla la ku ci japp soxna yi ku ci japp daga daga dal li mel maryam ya maryam nak nag li rabbiki wasjudi warkan yi ya maryam yow jigen ji ay way jaamu yalla royal min ña non jigen ni jigéen ñi mak génn jigen gi ñuy soow ci wilaya bu génnee doome suñ bambay doome sa die la képp la képp doomi sëñ Bamba yi su su leen génnee génn jigéen gi ñuy jën walaay xamu ko xamu ko jigéen ñëpp ñoom ñi ngi ci adduna ji dara la xamuñu ko gisuñu dara defuñu dara ñu nekk te yàlla bay am dara ndax waqar na fii buyoti kon na ja moo jiitu woon riigu leen ci ci kër yi te jigéen ñu riigu wuñ ci ci kër yi kon lañ kon ginnaaw riigu wuñ ci ci ci kër yi moom mënuñoo xam dara mënuñoo am dara loolu moom leer na moom moo tax it doom yi ñuy jurit daanaka dara dañuy sonn ba sonn te duñ am sero lu ko waral mooy ndey daa liggéey sero kon yow sab kont banque ba dara diw ba ba ba boo kon nga góorgóorlu kon soxna yi ay waay soxna yi ay soxna yi tey buñ jóge woon fii tey ñibbi ci kër ya summiku nag ci tekkaay ak col yi lépp daal dem ca xalwaya dem ca derba jéem a bokk ni kat lu lu tax man mënumaa doon am maam jara lu tax man mu mënumaa doon soxna aw bësa lu tax man mënumaa doon soxna amintaloo te ñoom ay nit dong lañ ay waay ay waay ay loolu fi bi bu ko defoon kon nay benn génération rek mu rek gi daal di dundaat ruug yi ñëw ay ay awliya daal di juddu ay waay jigéen ñi de ñoom ño ci mën a dimbale waaw bu dul loolu rek day wala yu de balaa juddu wala buy judd ma ngay juddoo ca ca ñeneen la juddoo ñeneen fi mu toll ku mel ma andi si kenn maam an su ñang maam an su ñang wala yu kaamil la kaamil mën naa ko waat moom ni waliyu la maam an su ñang ma nga sirimang ca wetu kaarang fi mu toll nii te na am téeméer at ak gudde ma ngay gis nee na ma tërbiyu naa sama sëriñ ba fanweeri at fi ñu ba demee këram fekk fa ay tubaab ak naar ñëpp a koy ñëw ñëpp a ñëw kooku de ab séeréer la ab séeréer ab soose ko soose yi ñoo ko yar ñooy nijaayam waaye moom day waliyu dëgg la moom dëgg dëgg dëgg la kaamil la waaw waaw léegi nag kon ana doomi si soxna yi ñoom doomi soxna yi dañu dañoo mel ne na ñoom waat ci ne diwal yu la ci loolu de xanaa ñu may ñett koy def waaye day bala ngaa waat ne diwal yu la day yaakaar naa daanaka day ay nax lay gën a doon kon kon wasaa il yi jumtukaay yi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa doon tërbiya luñ luñ ca war a téye ak luñ ca war a yeesal dara dara xanaa daal dëppale ko ak jamono maanaam maanaam sikar tur yàlla jàng alxuraan jàng xasida beru jigéen ñi liggéey joxe ci yoonu yàlla yooyu moom mënut a mënut a soppiku waaye nag sikar tur yàlla waaye tër bi yiw dem di taxaw moom mën soppiku kee mën naa nekk ca Sandaga kee nekk Paris ba noppee di interview nga xam ne xam ne léegi par di lay doon ak bondu lay doon ak bondu da ngay nekk Amérique sëriñ bi lay tërbiyee nekk fii waaye nag waxuma nag ne sëriñ ba jël doog nga yóbbu ca àll ba nekk ca taax yi wax mooy doog ngay nekk ca taax ya sëriñ bi nekk ci kaw gi di tërbiyee doog loolu moom loolu moom jàpp naa ne mooy li gën a yenu maanaam bu dul loolu donc nga yi du du du du de loola na muy amee mooy ñu jox leen tur yàlla waaye tur tur tur yàlla nag ne war naa an is doon an is na xasida yi ñu jàng xasida yi gaa nga jàng rek kar moo ne day ku ci amul is na ak ay gaaw mbooloo mi li ñuy jàng ci xasida yi buñ ci amoon isna kon sëñ bi ak caay-caay génn ci cëma caay-caay jëlul jàngatu xasida maanaam li gën a wóor di li gën a xoromu mooy seytaane da da koy nax dal koy jël jigéen ñi jàngatu xasida bu ne day am fan si yu bari jigéen jigéen ñi da koy topp xam nga doxa jigéen daa mel ne moo gën a xam boromuk leer da koy naan bo beugé bax bax rek jigen ñi top la bàyyi rek jigen di am jigéen top la setané mo leen mo la jël jigen ñi bëgg ñu naan yar ga tourna ci ci kër ca kër sëñ saaliwu xadasalaw sirra am mak muy wax ne ci si sëñ ci ca da na leen wax na yaakaar naa ko got la wax yaakaar naa de yaakaar naa ko got la wax yaakaar naa ci si sëñ saaliwu daane leen wax na do ngay tërbiyee leer googu di indi ab jël ci nit leer googu bu saxee ci ci nit ba mu dugg ci bàmmeel moo koy leeralal bàmmeel ba daal ne nag li li li gën a gaaw ci naan leer ga mooy riisub jigéen joo tëkkut daal di wax ne boo riisub jigéen joo tëkkut day mel ne da ngaa yor mbusum ndox wiir wiir mbusum ndox dugg ci àll bu bari ay dégg dégg ya di di di dugg di laal mbuus ma muy seeb da dox dox ba lambee doo daj dara nee na jigéen joo tëkkoon noonu lay def ak leer yaakaar naa ci vidéo yi gis ngeen sëñ Saliou njaareem toog seen soxna kilifa teg loxoom ci lupp sëñ bi sëñ Saliou dañ dugg ci néeg bi summi mbuma sol melen melendikat loolu moom gis nga yaakaar naa vidéo yi yaakaar gis nga ko ci nga xam ne mom moom mbumma mi mi naw ci lal da ko dal di mom summi mané waw ba mi kay defoon na ko makki kajoor doomi bajanam bajanam ja don ko don ko doomi bajanu ba tey ci mbuma la lafuwa señ bi dag dag la ba bako mom ay way ay waay jàng du xaside yi nak ñoom dañuy jaxasoo jigéen ñi waaw nga xam ne kon ñoom moom lépp lu ñu amoon jigéen ji naan ko se se seytaane moo leen yebal ne dem leen naanal ma waa ji lim yor ci ak leer waaw kon moom xasida yi kon bu ci amoon ndigal yaakaar naa kon caay-caay gi dana deñ ci noonu ñëpp a ngi koy jàng jàng jàng jàng rek waaye dara baaxut dara baaxut de dara baaxut jàng ne ba sonn waaye dara baaxut kon ndigal laa ta ta tafaalo chean bi xëy na na fa initiatun fi qabuli sha'ni am murit moom lu may def da caa war am digal waaye nag ku koy digal mooy cheikhu murabbi ko cheikhu murabbi mooy xaarif billah waxuma benn waay de moo lay jox digal ndax moom dafa am connexion dafa am isn mala i isn ilahi yàlla koo digal ubbil ko bunt kon kon moom loolu kon moom waris na na yaatal nga xamante ni kat bu ñu dellu woon ñuy tuddee ay sëriñ bu ñu dellu woon ca derba dem prix bi yu ju aw ah, tur yàlla mu mu mu jaral la def ci sa alal ginnaaw mënatoo ko ñaqal nga jël nga def ca saw ñaq ba jot ca nam la ko waxee nga def ko traitement ye jàll nga xam dara su boobaa nag ginnaaw léegi yow ci xam nga dara fa nga jaar man nga faa jaarale keneen waye nak waxuma rek day sama bay ab sëriñ la nga def sëriñ loolu moom du dara moom moom sama bay médecin la rek ab médecin la ku ne xam ne ne du waxi dara njëriñul tër bii ruux ya njëriñ li tër bii ya, bu bu xam nga tàggat jëmm ji lo ko ba mën bay mën nga nangam mom moom mom du tër bii de tër bii ruux ya ya yar yar rogi la rogi bokk na ci tarbiya ruuxiya li muy jariñ te mu am njëriñ lool mooy yaqiin al yaqiin al yaqiinu mooy sa xel dal ci yàlla nga xam ne yàlla kat am na waaw waaw nga xam ne yàlla de la mu xoon ci ci alxuraan du du ca tebbi dara nga ne waaw mu wir la cëng ne la ku njaaloo ca tuubu ko dem sawar mu wóor la ne mag ñi nee ñu ko ñu far saw tur ca li suuf góor yàlla ya mu a ca ñu waxuma ne ku ku ku njaaloo du du dem de waaye ku ku ku njaaloo yow dagg nga billet bu ñu okkee sawara loolu moom nga okkee nga billet bi moom neew sawara nga jëm loolu moom ku la mën di wax it da lay nax xanaa nag nga tuub tuub bu sell goo xamante ne mag ñi nee ñu bokk na ci lii mën a far. ba bakkaaru njaaloo mooy julli ci kanam ci ci ginnaaw xutbu zamaan waliyu waliyu rek aarif billahi nga julli ci ginnaawam dana far dana far bakkaaru njaaloo ku mel ne Abdul Xaadir ay waay gaa yi daanañ jóge Ndakaaru ñoom di ko dabbu ay ñooñu day jàmbaar lañ julli ci ginnaawam ndax mu faral la bakkaar yi wax na ne it jàpp ci jaatub waliyu wali yu ci ci ci fi bàyyi koo nga jàpp ca jaab ga dana far bakkaarum njaalo ko ko ko it nag loolu kon koo jàpp ne ni wali yu rek bu la yàlla fekkelee bisam soo mënee jàpp ca jaab jàpp ca ndax mën naa am kon lañu wax dal la kon yaqiin nga xam ne yàlla am na yàlla am na yaqiin gi day dem da xor-xoral bay seen aljana far na àjjana nga ne yakin gi da ngay dem bay xol-xolol di seen barsak di seen bamelia ya. di seen ñi ñi mbugal lolu lu ko lolu am solo la nga xamante yow da ngay dal di dem yow ba mu wér ci ngi ne deug am deug am deug am deug am na yakin kon lu am solo la ndax ku ko amul ba faatu alko ku amul yakin ba faatu alko al wusuulu wusuulu mooy rek bokk ci kuréelu gaa yu baax yi wusuulu tarbiya ruuxiya mën na laa dugal ci kuréelu gaa yu baax yi nga xamante ne misaal tey ku ku mel ne sëñ Njaga Silla dëkk Daaru ci góor yàlla yi ci la bokk sëñ Njaga Silla tuubaatul fa la ne waaye Daaru gii lay ne ci góor yàlla yi ci ci la bokk ka kàngaam yi la bokk de koor bu mag a mag ci la bokk ku ko mën a siyaare ji ma na xam nga lu lu ba jëriña wala renteeg moom nee ñu wëllëree du bàyyi bàyyi moroom ja bitti du ko àjjana bàyyi ko bitti kon ku ku mel ne sëñ njëga si la mën naa dem wëllërenteeg moom ndax yàlla bu la jiitu àjjana du la bàyyi biti loolu it lu am solo la ku sóor mooy bakk bokk ca gaaya gaa yi boo boo boo ca bokkul te soppaleen it di leen liggéeyal it almahiya maa man ahabba almaru ma ma man ahabba kon it bu su ëllëgee su soo sa njëge si la duggee àjjana dana ah waaw ana fi waay anam soo jóg kooku anamu ah dana ma laaj ndax wala réem la kon loolu loolu kon lu am njëriñ la kon alwusuul kon mooy bokk ci kuréelu gaa yu baax yi bokk na ci njëriñul première ya al nga am kashfu di xam lu ñëwagut xam lu ñëwagut dalay mayet yaqiin xam ne kat kon kon alaxira dëgg la alaxira ñu bari ci noonu sa sa sa bàyyi da dama daa naa ma nit ñi gëm nañ dee waaye gëmuñu la ca ginnaaw dee toppañ daal moom ku ku dee maxee ku nox mu jeex yow jeex na waaye xamuñu ne ginnaaw dee am na leneen monde buy ubbiku al muayana na dem bay gis secret yi lawhul mahfuz ngay ci ngay gis mën a mën a jàng message yi nga xam ne moom la suñu borom di sànni ci jamono ju ne message yi mën a accès ci ci yow nga mën koo jàng mën koo xam suñu borom mi ngi sànni ay tur yàlla yu bëri mi ngi sànni sànni sànni yu bare bëri léegi nag mën na am suñ xol yi moo mënta dékku loola ku am tawfeex mën koo dékku message yooyu ba su su su ko borom tànnee nga am la la ca tolloog sa kattan gi la kon kon al almoa di mën a secret li li nga xam ne nag moom la tërbi ruuxee dëgg dëgg di jaay dëgg dëgg nag mooy alxurriya alxurriya liberté xam ci waxin al khuruj min ribaqati al axyaar al khuruj min ribaqati al axyaar wal insijaj fi bawtaqati al axyaar deug deug liberté moy dara dutul yirif yilif lu ku may ku may yàlla dara dutul yirif yilif ku may yalla lu lu ma dagan na dara dutul yirif luma yalla dagan na waye dama ko bëgg bëgg tonk rek motax dara dutul yirif yilif may ku may yàlla yàlla képp la yirif axyaar yi mooy lu dul yàlla léegi nag génn ci ñoo ci lu dul yàlla mu di la yirif du ab dërëm du dara du jigéen du dara rek ajjana al al xurru huna ajjana moom yafaru ko maanaam du du du def dara ngir ajjana moom jigg na loolu jigg na ajjana al xurru huna du def lenn ngir ragal sawara déedéet moom kat daa sopp yàlla ba nga xamante ne sopp gi dong moom lay jëmmal jëfal yàlla rek ne ko yàlla ne ko lu tax nga jëfal ma mu ko dama laa sopp képp rabatal daana wax naan su ma mënoon a jël sa waraw sopp yàlla xëpp ko ci àjjana mu takk ba fay ba giim ma jël loxoom sopp yàlla sotti ko ko ci ci sawara ba giim nee na nee na ma xool ba xam nag nit ñi ñoom ku ñu jaamu ak luñ koy jaamoo al imaamul Junaydi mas naa ñëw ci kaaba gi di ko wër seen soxna ab xaarifa billaahi ne ko ay waay yéen day bu ngeen yàlla tigi kon borom néeg bi ngeen di wër waaye kon du ngeen wër kon doj wi kooku kooku loolu la ñu tuddee tajriidu tawxiid tajriidu tawxiid lu kawe mooy ni ko ruway mu waxee si du ruway mu mooy maxu asari rububiya da ngay dem ba na naa ma ma maxu asari al ubudiya nga xamante ne nit yi géeg yooyu yëpp déedéet dama jum de maxu asari bashariya waaw maxu asari bashariya nit yi gi ngay far سيما ma saxir mbay mu tedd ma waxoon na ko sëñ sëñ bamba xayyaaka rabbul wara rahmaanu xayyaaka wa bi shuhudi maa tamkiini bayyaaka أبخاك بالذات سهوا عن مشاهدة من بعد ما بتجلي الوصف أفناك وهو قوت قوت لهم سنتوا كات يلا تلفين تلفين دو دير يو سنتوا دو دير دو دير دي دي da da da ko gaar moom waxoon na ne moom ci moom xallabalil ahyaana man abqaani wa kaasa ihyaayin bi saqaani yàlla yàlla wëlbatil nan teel na ma dee muy dund ah yaakaar naa loolu moom ci alxuraan leer na bal ahyaawun inda rabbihim yurzaqoon ñoom suuf suuf yanke yi bu bu ñu demee ba am baqaa tigi duutuñu dee duutuñu dee mooy Cheikh Seydou Diakhaté te te am daanaka ñëw ñëw na fi moom ne ko sëñ bi de dafa ñëw fi man ne ma demal ca am sëtu ne ko te te yóbbaale alluwuy wurus xalima ak wurus ne ko ne la bindal tur ma doon def gabon. ba mu ñëw Cheikh Seydou Cheikh Seydou ne ko fi fi man la jëkkee fi man la jëkkee kooku kon sëñ bi kon moom teewul mi ngi fi de xanaa kay yow nga amoo sens amoo capacité basaru mën am communiqué ak ak ak ak ak room waye mom mi ngi fi mom mi ngi fi. mi ngi mi ngi fi sen sëñ diw sàngam mi don mi don nekkon ci barabu barabu mag bi sen nangam sangam tudu tudu kat da xorom bo tudu tudu man nam ay setam ñom du dara te dañ di woné sen nangam sangam nekkon ci barab bi tek fa nak ablaw ablaw di ci top waaw gis naa ci barab bi nit ñu fa nekk di jël ay tëppi di ko tegale di ca toog ba noppi di tegale si seeni tànk koolaa tànk yi gis naa ko de oh ñooñu de xamuñu xadra bi ne ñoom xamuñu ko de kay am na de ndax yàlla ñoom bi ko déggee ba ko xel kooka toog calal ba sëriñ fa lu mu dikk tere ko ko waaye li beneen bii moom laa soxla mooy daa daa daa teel a xëy barab ba ñëw fekk sëñ bii di di julli naafila mu daal ne daal daanam ñu ñu ñu daal koy yanu jóbbu ca sëñ Fallu mu ne waaw waaw waaw li koy def ak a bari waaw ne ne di ci ne ko deel yéex a xëy oh la ilaha illallah Cheikh Moustapha suñ bi suñ bi ñibbisee ci barab bi sama bàyyi nee na benn waliyu sërifu tukkulóor ñëw na ci Cheikh Moustapha jaawale ko ba noppi ne ko da ne ko a dem ci ca barab ba boole ndaw mu mu mu yóbbu bi sëriñ bi di ne asalaamaaleykum sëriñ bi di ko waaleykum salaam donc ba dana dal la faatu oh, kon kan la balil a aana yaana man abqani wa kasi ihyain bi saqani sëñ Tuubaa moom deewut mi ngi dund de ko am tawfiq man ko gis kon al hurriya kon yow doo am doo bëgg àjjana doo bëgg sawara loolu nag loolu nag mooy shiarul bu bu yàlla yi tigi ma ji sóobiya ma ja si bi ñoom loolu la xam naa ko xam naa ko waxtu ko yu kon mi ngi jege jeexeeti tarbiya ci société bi damay damay andi négatif bi moom ñëpp xam nañ ne jeexeet ji moom xamis na ko jiw baax ji xamis ko waaye négatif bi lay bi mooy bi bi bi tarbiya jeexee diw sàngam maamam suñu falluy maam ndayam xawma diw nangam suñu fallu waxna ma ci kaw la 2000 la wala wala lu ko ji tuti sama neeg mu mu ne ma mu limal ma juróom ñenti seri sëñ bamba yo xamne genn nañ ci murid gi ñepp sante bakke ne ma jàng ca di tërbiye wutur yàlla kooka jox leen ak tërbiye tijariya waaw waaw am na ma sa wo mbàkke la sante di ma laaj faydu faydu mané ne ko loolu de moom si di wax bu né ma man sax day séti won nako fa mom feydou cheikhou Khadim la ron laaj mu né man séti won nako kon mom bi bi terbi amatul nit ñi mar nañ lol ñepp ñu tuñ tuñ fu né fi wa kër si lañ de jambar lañ lol ak ñoo bari dong fi Touba jambar lañ jambar lañ de tabanade de amona diw sàngam mbakke ko xam ne fi mu toll moo topp ci xalifa kër fat na fi ab tiyaan ci di ko kampanyal nit ñe di jël ci moom tiyaani ya mu leen di tërbiya ab de sama rakk man demoon na ca kooka kooka ne ko da da ngay jël wird mu ne ko mu ne ko ah, kon bayil ma kuma yi moom du du du dikkaatut loola ab kilifa gu mag boo xamante ni kër baayam kër gu magam nga la gu xumba xumb la kër googa gu xumba xumb la gu xumba xumb kër googa xalifa ba kañ topp moo moo jëloon ab tuyaan këram di ko campagnal ngir mu génni nit ñi ci yoon wi ah maa ngi wax négatif bi ko sëñ boobee kon moom xamut dara moom xamut dara xamut dara xam ko moom dara xamuko ko te te xamu dara gi sax déyut kon mom ndax kon fekk nako bax kon keur bayam ah lol kon problème la ndax fekk nako bax keur bayam baayam tax na moom léegi nag moom ma ngay gis na kat mbir mi deug ma nga ca tiyanda lol mom lu lu lu lu la murid yaangi ngi ni si mu dem di sukk di sukk ko siyaare waye gaay yi kat ña fenen de waaw seen ruu yi jëbbal nañ ko feneen waaw sëñ Tuubaa mii da dañ koy nax ñoom ñoom nekkatutuñ ay murit ndax ndabal sëñ si sëñ Bàmba ji xool nañ xool gisuñu ñu ci dara làmb nañ làmb dara lañ ci dajut benn waay nee na ma ma ca mexe ku ñuy tuddee sëñ Xaadim Fay la ma xam kon kon xam kon am amuri la woon see la woon sëñ Fay dem na Kawlax tërbiwu ñëwaat dekk bepp jeblu ci mom don ay bañes xadim fay la tudd xadim fay ñepp la doon ay bañes loolu kon mom amna ben benn seexu Baay ma ab na fi dem Kawlax di terbeewu neena ma moy noddal sëñ ba mo koy xamal ab seexu Baay Faal de li gëna a sax du nak du do do amna diw sangam mu terbeewu fi ci touba ba mu tërbiyoo ba wàcc xam nga lu lu lu mujj defa magam bàkkee ca yëfër ya doon ab yëfër kon kon moom kooka dem naa ba ca doomi sëriñam wax ko mu ne ma jiw la fii la la doon tërbiyoo léegi ab yëfër la loolu kon moom bi tërbiya amatul rek yooyu yëpp ko ci kon am na si sëñ sëñ Murtala bi doon wax alxawla mu mu jëli sensation yaakaar naa ci tënk rek mooy internet bi gis naa benn xale boo xam ne ab moodu moodu la damay laaj si tuwaa lu bari mujj mu mën a ma waaw si si si tuwaa sax moom lu mu def moom. ma ko ah man ma lu mu def bëgg naa ko euh, sëñ tuwaa yàlla dogal profil bi bi profil am ma ngi cee di ñu ngi cee di seen Cheikh Abdou Khadir Diané ma ne ko waaw Cheikh Abdou Khadir Diané moom lu mu def moom. ma baat ah, def na dara kay am na tariqa ma ne ko sëñ tuwaa am na tariqa am na wérd ma ne ko sëñ tuwaa am na wérd waaw sëñ bi kooka. buñu waxtane waxtaanee ne ko sëñ bi yow té nga gatu tank sa xam-xam bari wul té te ngaa bañ a tu mu ne ma man kat dama adhéré wu ci city salafis yi lay lay adhéré wu lañuy xass sëñ Tuubaa moom jaxal ko mu ñëw ci non bëgg ñu gindi ko ja sëñ bi kon la sëñ Tuubaa waxon ma fa Samba job sun maam ja sëñ Tuubaa ni leen won yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yéen dafay taxa mucc jekki gàttu tànk ci internet bi kon kon kon jamono jii jekki noppi noppi ci lu amul njëriñ liggéey loo am doy ko yaakaar naa kon loolu kon mën naa am danañuy dimbile waaye moom murid murid gi moom ña ngay dem de yaakaar naa kon taxadiyaat yi alhamdulilah moom ëpp na loolu foofu sax moom maanaam moom benn waay ñëw na ñëw na ci maktaba sàngam laaj ka nekk ne ko yow xaside yi bay di Sëñ la ko ban at ko bindee ak fan mu ko xamu ko mu kon loo fi def man maa ngi def logiciel boo xam ne bu bu noppee bay bu nekk danaa la wax ko sëñ bi bindee ak kañ la ko sax du am ab sin wala di ab ab ab sàppone la sàppone la may tiit nag mooy logiciel boobee bu noppee siraarul bàyyi siin yëpp fa lañ jëm waaw ndax nuñ suñ bi gëstu wuñ de euh, ma jeexale ci waaw laaj bii sëñ Mourtala laaj bii yéen sëti sëñ Bamba yi sëñ Bamba amul téere kitaab marjien bii taarixi Cheikh Xadim amul téere boo xam ne sëñ Tuubaa taarixam cosaanam bi mu feeñee ba ba mu làqoo téere bu ñu wax amut waaye sëñ bi milliards yu bari yi ngeen yoru ana moo sëñ bi du ngeen liggéeyal sëñ Bamba kii ab ta téere téere tant taarix téere boo xam ne sëñ Tuubaa lay jàngale amut amut de mi neen waxu ko Iba waxu ko jeex na mi neen Iba cëpp ñoo fi ne sëñ Tuubaa téere bu yox taarixam amut waaye sëñ bi yéen yéen jàngkat yi nga xam ne benn xale ñu ñu ñëw ne fi man Turquie la ju la ju jógee di def thèse master xaw ma doctorat université ba ñoo ne ko bindal ci ci sëñ Tuubaa ka ka saahibu tariqa ka mu assis sëñ tariqa waaye nag parcours bi mu assis tariqa di jaar lii la demal nga bindal yi mu dikk wër na ko ci minan gisut ten waaye gisu ko so moom da tawfiq yàlla le damaa jékki-jékki bis rek ma ne waaw man al atawatul mahrifiyya sëñ jaar jaar waayam bii lan la may jema seg di jël xisas yi di diko di théoriser ba ba nego? ko mana buru ak alxomda waja tes ba day nil parce que non non non noonu milliards yi duñ ko jéem a jox jàngkat yi ñu bind ci seigne touba taarixam joxo ñu jox jox jàngkat yi ay auto ki nangam ñu wër all bi puñ dem mag mu ñu mu dekkon ci barab sangam ab sëtam loolu lu mu xam ci seigne touba mu wax ko benn baat la ah gaa yi gaa yi sëñ bi noonu noonu noonu mbiyoog daal mbiyoog mbiyoog asalaamaaleykum